Euh, bii mooy suñ juróom benneelu édition ñu koy def tuddoon ko Marmite du Cœur ren nag euh, wala daaw jik sax laay wax amal na changement bu ci am changement mooy lan mooy ba bañ koy door danoo tàmmuloon di jox askan wi euh, lu ñuy suturoo suñ dog jotee mooy maanaam lu ñuy xewloo ak lekk tàmbale ko ci lu néew nag ci am xar ba ñu rey ñaari xar ñetti xar ba ci aw nag waaye dañu dem ba caag ñu gis ne daal loolu baax na trop waaye li ko ëpp solo mooy xam nañ ne borom kër ak koor gi mu toll su ndogu jotee ak Tuubaa gi nga xam ne solidarité ndogu bari na fi fu mu ndogoo tëwu ko su demee jumaa ja ndogu su demee résidence ndogu su demee ci yeneen kër yi ndogu ñu ne nan changé nag format bi ñu ne ah pour changer format bi nooy def ñu jox ki nga xamante ne bi yiyoo na ko loo xam ne dina tax ba kooram su ko defee ba mu fanweeri fan jeex dina mën a korite ñu ne nan bàyyi ba korite des ñaari fan wala ñetti fan wala benn fan ñu lëkkaloog action sociale Xaadim Njaay yi nga xam ne moom moo xam ñi ko yeeloo te moo loolu liggéeyam ci loolu lañ ko tàggat ñu jébbal ko li am mu tànn ñi nga xam ne yeewoo nañ ko ñëw ànd ak ñu joxe ko moo tax daaw jéeg ak ren ñu jël ay ñenn ci Tuubaa Mbàkke ngeen jàpp ne ah fii gi ñëw dinañ ko soxla ñu yëkkate ab enveloppe mu néew wala mu bari jox leen ko ngir seen Korité mën a egg lépp du budget du subvention jógul ci personne étrangère mu néew wala mu bari ndax enveloppe bi su ñu ba naan mat na 500000 jóge na jógul kenn ku dul volontaire courage départemental ak seen président départemental. donc di nuyu d'abord suñu président di ko sant Alaaji Mbay Sall bi nga xam ne bii moo nu kàttanal xelal nu dooleel nu may nu fit ban ñime lii ba ko def. waaye ci moom la jógee ak volontaire yi nga xam ñoo nekk sama ginnaaw ak bépp volontaire bu nekk ci Touba ak Mbacké te jaar Croix-Rouge yaa xam ñëw nga wala ñëwoo yaa ngi liggéey fenn wala liggéeyoo yaa yëkkati sas tuut wala mu sas bari ñu dajale ko ba mu toll enveloppe nga wax di téeméeri junni ak lu topp yooyu lañ jël jox ko ñi nga xam te ne bii ñoo ko yelloo pour ñu mën a correctoo wala correctoo ak seen njaboot ci anam bu gën kon daal du budget du subvention du bu nu ko jox du benn waaye defal yàlla bu ko jox alali volontaire la alali Croix-Rouge la jëm ci ñi nga xam ne bii danoo njort ne ndax nag eh, jamono bi da nga wax waaye ñu gis ne nun ak ñoom ñoo dëkk ci Touba Mbacké ñuy saafoonte ay ati ati at ñu gis ne dañ daa ñëw ci nun di tàllal loxo action sociale action sociale di ci def la mu mën ak lu mënut ki amul lu ko jàppale ñooñee gis ne korité gi du ñàkk ñu deman di wuti feneen lu nu korité wala lu ñu jëlee seen doom ay yére wala lu ñu soble wala lu ñu yeneen ak yeneen ñooñee nag ñu xam leen ci gu wér te amul xaj ak seen ñooñee leen yooyu ci valeur bi ma la wax journée bi moom journée la boo xamante ne journée activité sociale la c'est pas la première fois croix da koy def te à chaque fois mu koy def da ci associé action action sociale mën naa jàpp ne suñu partenaire moom Croix-Rouge départemental la li ci am solo tamit mooy weer ñu koy def ak tamit niñ koy defee xam nga nit dina dimbali nit te te te te ni mu koy dimbalee du rafet mais lii dafa rafet parce que dafa lal lépp sutura te ñu teg ko ci loxo ñu ko gën a yeewu loolu daal fi mu ne dañ leen ciy sant di leen ñaan yàlla mu gën leen ko mënal dama ciy yokk du loo xamante ne dañ ko uti feneen déedéet agent yi fi nekk ñoo lamb seen poste def journée bi kon lépp ci ñoom lay déglu lu baax lañ bëgg rek te lii ñu ci bari dañ fa war a rey parce que ni ñu ci war a royee mooy booy joxe lu baax da ngay dem service technique bi nga xam ne moom la yàlla dénk loolu mu mën a def un bon ciblage parce que euh, néew dellu dafa metti laaj dafa metti ñu ci bari dañuy ñëw wax ñu seen soxla ci sutura kon booy tànn tamit ci sutur nga leen mën a tànne parce que yaay xam seen jafe-jafe kon ci gàttal daal dañuy ñaan yàlla lii ñu gën koo man ba mu romb ay enveloppe yu bare bëri daaw li ñu defoon ren dañ ko doublé ba passé ko boo xoolee mën naa ne le mois de ramadan bi ginnaaw appi benn personne de bonne volonté yan ma may sax ma wax ko muy maam Anta Dia muy Abdoulaye Diop ko yàlla na ko yàlla defal ay xewal yokk à part kooku Croix-Rouge laa fi gis koo xamante ne moom taxaw action sociale ñu bari nag def nañ fa ay don baax na yàlla leen ci yàlla fay yiw mais nag boole ci service bi nga xam ne yàlla moom lañ dénk loolu noonu amul lu ko gën a ëpp solo parce que ñun état lañ fi nekkal te yéen daanaka li ngeen def tamit dimbali état la kon boo xoolee fi ngeen ko war a jaare na ngeen ko faa jaare loolu moo mu am solo ñun amuñu leen luñ jox ci yéen rek lañ mën a yaakaar mën a taxaw askan wi mais action sociale amul benn kees boo xamante ne da cay làmb di ay doomu aadama mais ñu baax ñu mel ni yéen comme partenariat yi ci la mën a sukkandiku pour mën a dimbali doomu aadama yi gis ngeen ko bu ngeen xoolee seen bopp di ngeen xam ne ciblage bi ku ko fi jël si ku rek borom njaboot la te yooyoo ko.